ahada bihi abubakarin sadiq xalifatu xalifatu muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda axiri inda axiri ahdi bi fi dunya wa awul ahdi bil axira fi lxaali allazi yuminu bihi alkaafir wa yattaqi alfaajir inni laqad istacmaltu alaykum umar ibnu alxataab fa in barra wa adala fa zalika ilmi bi wa ra'yi fii wa in jaara wa baddala falaa ilma lii bilxayb wal xayru aradtu wa li kulli imrin maa kasaba wa sa yalamu lazi wa sa yalamu lazina zalamu ayya munqalabin yanqalibuun sadaqallaahu aziim Omar ibn Xataab radiyallaahu anhu Abubakar Sadiq moo bind testament wane ni lii mooy kóllëre ak dël bi nga xamante ne nii abubakarin xalifatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na ko ak omar ibnul xataab ci àdduna bii xat bii ci samay fan yu mujj yi ma war fas yéene woon àdduna gannaaw sama njëlbéen fan yi nga xamante ne moom laay dëgmal alaaxira ci situation boo xam ne nii kéefara koog naa fiq xëccoo ko gërante ak wuute gu bare bare bari nar na nekk ci suñu kanam ndax ku ne commencé ngaa gis te gis-gis yi ci ëpp intérêt koy nar a lal ci jamono jooju maa ngi leen di xamal ni wallaahi tànn naa Omar ibnul Xattaab mu nekk suma xalifa ci sama ginnaaw loolu mooy li ma gis loolu nag fa in barra waadala fa zalika ilmi bi su fekkente ne rafetal na maandu na baax na def na li ma njorti woon ci moom kon xam leen ni lii mooy li ma gis ci moom mba tax ma wutal ko sama ginnaaw wa in jaara wa baddala falaa ilma falaa ilma lii bil xayb wal xayru arattu bu fekkee dafa def sofaan ba nag de bàyyi ba ma génn àdduna moo leen geneen xar kanam gu bokkul ak woon gi ma foogoon ci moom ak li ma njott woon ci moom xam leen ni man xaw ma woon loolu ci moom li ma xam te moom mooy lii ma bind xaw ma na kumpa nit dafa lëndam yàlla rek ko xam man li ma xam ci moom mooy lii lii ñëw suba nag xaw ma ko waaye xam leen daal yiw laa ci bëgg lu baax laa ci bëgg njëkk rek laa ci bëgg moo tax ma tànn ko waaye li may mujjël sama kat daal mooy wali kulli mri'in maa kasaba kenn ku ci nekk la nga jiire ngay góob kenn ku ci nekk la nga la nga togg rek moom nga yekk wa sa yaalamu lazina zalamu te tooñkat yi nga xamante ne ñooy tooñ ak yi jalgati ak nit ñi danañu xam xam gu wér ni ëllëg yi si biir seen bu ñu jàkkalu seen kanam borom fan la tooñkat jëm fan la jalgatikat jëm ndax mooy mbugalu suñu borom rek sëñ Abubakar Sadiq Abubakarin radiyallahu anhu lii la signé signé ko ak Ousmane ibn Affan yëgal nit ñi nii bu fekkee génn na àdduna nanu ko jox xilaafa gi moom Omar mu jiite Abubakar faatu na 635 ca gàddaay ga milaadiya waaye li mu jëkk a def comme discours mooy discours bu responsable discours bu am solo loolu lañ tuddee discours politique général boo xam ne premier ministre moo ko daan def ba ñuy ca jamono yooyu ñu am première ministre léegi nag amul amatuñu premier ministre waaye bu njëkk bu ñu mosaan nommé première ministre ba mu tànn gouvernement ba pare day dem assemblée député yëpp toog mu def ko discours général yenn faa wax ba ngoon jot te lu mu wax lu ca dellu téwóree téwóri lu ne mu wax ko ñëpp jàpp ni ku nar a liggéey ngi nii waaye ba tey rek noonu lay demee rek wax lu bari liggéey tuuti wax ay foo yi bari bind ko teg ñu tàmpane ko def ko ci journal officiel bi ñëpp jàpp ni waaye dara yaax yaax yaax dara du mujj fenn ci commentaire rek ak xastante lañu ñu mujj ñu yëyee classe yooyu du si ba ñu falaat beneen premier ministre mu ñëwati bind duubal ci la bindoon wax wax wax wax booy xool ministre yi am premier ministre yi fi amoon yëpp ku ci nekk tey bu ñu ubbee dossier discours yam fa defoon yëpp nga muy ay këyit yu muur ba démb ca ngoon loolu nag bu doon état lislaam la dañuy dañuy éliminer wax lu bari te fas yéene yi liggéey liggéey lu bari discours bu gàtt liggéey bu yaatu waaye discours bu gudd liggéey lu tuuti yàlla na ci yàlla musal Omar daal ni asalatul jaamia julli ca mbooloo ma wala ma nuy dayloo bu ñëpp ñëwee yéeg mu taxaw dane inni qaa'ilun kalimatin amma ana fa wa rabbil kaaba la uxmilannakum ala tariq lii daal la wax maa ngi leen di wax wax joo xam ne nii ci sama xol laa ko tibbe mooy sama yéene moom laa nara def aw askan bu ñu la fale laxasal sa ndigg na ca kanam di xalli di yaatal di liggéey ba ku la xool sax bu naroon tappale mbaa mu nar a yaafus sax dootul tappale dootul yaafus dafay liggéey loolu laa nar a def danaa leen diriger danaa leen jiite ci liggéey bi rikkiwaay nangeen ngeen ànd na ñu liggéey na leen ànd ñu liggéey loolu laa bëgg loolu laa gëm point léegi nag bi bi mu paree ci discours politique général am boobu lan la Omar def bi mu nekkee xalifa dafa def concertation première concertation Omar dafa woo yi saxaaba yi woowaa na mooy ñu jógee Màkka fekk si leen ci Medina bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot ay responsable lañu daal woowaa lan saar ñi nga xam ñoo ubbi seen buntu kër ubbi seen alal bokkook ñoom yaatal leen mbokkoo leen indi ñi nga xamante ne ñëpp ñu ne ay doxandéem te tuub te lislaam rek bàyyi indi leen fa concerté ak ñoom wax leen nag li mu nar a fas yéene liggéeyee premièrement li mu jëkk a wax dafa ni il faut li yàlla wax yonenteel Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko bala la kenn gëm sa mbokki bopp yi ñëw lay gëm mait loolu laa bëgg doxal bala ñu kenn gëm suñu mbokki arab yi ñu lay gëm il faut nu wax ak ñoom benn ñu ñëw tuub dugg ci diine ji mbaa ñu seen ñoom ay pacte ba foop jullit nekk kenn dootu la bu ndoxataal kenn dootu la tooñ nga am say droit am say àq mën a libre ci daamu sa borom daa ñu maa ngi commencé Cham fa laa ubbi ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala yow laa bëgg a jox nga laa bëgg a jiite nga nekk général de guerre nga doxal Cham seen Ali karamalaa bi wax ni maa ngi jëm si mag nañu seeti xale yi ñu am kattanteem fit te mën a diriger mbooloo ñu jiital leen ñu dem waaye eh, ama ana man maa ngi jëm mag si Omar te fit ak fulla ja ak yéene ji ne ko kon bàyyil man ma jiite ko bàyyil ma jiite ko Ousmane ibn Affan radiyallahu taala anhuma ñu ko ah, bu ko keneen jiite woon dey mooy gën ndax xalifab rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ni dafa jiite guerre bi yàlla dogal nga sa bakkan rot fa dana indi tayal ci jullit yi dana indi yooy ñox ci jullit yi dana tax itam noon yi amaat beneen pexe ci ñun waaye bu ko keneen jiitee même bu fa génnee àdduna tam du wàññi ci suñu position ak suñu pas-pas dara waaye yow daal ñu seet keneen mu jiite ko moo ëppoon solo ci ñun te loolu lañ lay conseil léegi noonu nag Omar daal ko nañ tànn Abu Ubayda Amir ibnul Jarrah def ko muy capitaine guerre bi mu jiite ko mu jël Xaalid ibnul Walid boole ko ñeenti général ñoo dem xaraj ak Hiraqli Hiraqli mooy buuru Rome Iran Syrie Riche Albab Turquie Liban ñii ay état français la yoo xamante nii ca nguur jamono Sidna Omar ibnu Xattaab xiraq li mii moo leen jiite woon ñu leen xeex ak moom xeex bu métti duma ko jàpp ko moom xiraq li Omar ibnu Xattaab daani tëdd teel na tekki ngemb yi teel na nan laxasuwaat ay demee ubbi Dimashq ubbi kaysar jël ko ñox wax Muawiya ibn Abi Sufyaan def ko muy gouverneur bu Qaysar ca jooj jamono daal ni tëdd teel na mu daal di ubbi Égypte ak dëkk ba ñu wax teg fa Omar ibnul Aas ñii na commencé liggéey muy liggéey bu pertinente moom Omar ibnul Xattaab mu dajalewaat Xaalid ibnul Walid ak Amr ibnul Aas ak Abu Ubaydata Amir ibnul Jarraax ak Muawiya ñoom ñëpp la woo ak mboole doon xeex ba gañe am ndam mus muy ñeenti généraux yoo xamante ne ku ci nekk ñeeyu xare nga ñu ànd ak ñoom ñëpp nag dem def ubbi ji te mooy Jérusalem Jérusalem di dëkk boo xamante ni juif yeeg franc eh, kii chrétien yi dañu fa am doole waaye ceddo gaa fa doole nag ñu dem daaneel buur ba fa nekkoon samp fa drapeau l'islam ñaareel ba Omar ibn Khattab ci limu liggéey ubbi na Irak jël capitaine bu ñu wax Abu Ubayda Amir ibn Jarrah ba léegi gay na nga ngoon jàmbaari fàkk tëdd ak ku ñu wax Mustahin ibnul Xaaris ñii ñoo dem ubbi Perse maanaam Iran ñoo ko dem ubbi ba pare samp fa drapeau lislaam ñoo ñu ñoo dirise xarbul xaadis yi xarbul xaadis yi xar bu métti la woon xam naa du ñàkk daañu ci mos ñëwi ca arjee la ñu jëm bokk ñooñu ñoo rey buur bu ñuy wax Rustum jàpp seen njiit la mooy Baxraan yeew leen ñoom ñëpp ubbi dëkk bu ñu wax Naxaawi ak Pakistan ubbi nañu Afghanistan ubbi nañu Nooro ubbi nañu Albaab Xuraasaan dëkk yooyu yëpp Omar ibnu Xataab moo fa daaneel xërëm yi toj xàmb yi damm kuur sama fab drapeau la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi yabal na gouverneur bu ñu wax Nu'man ibnul Akram mu ànd ak Nu'aymu ibnul Akram ñoom ñaar ñoo bokk baay ak Sulet ak ibnul Akram ak Xusayfatul Yamani ak Qahqaan ak Mujaaz ibnu Mas'ud ñii ñoom la yabaloon ca xare Qadisiya ñuy xare bu metti Nu'man moom dañu ko rey ndax dafa teel a dente moo doon capitaine bi ndeysaan mag euh, rakk ji wala ba mag ji moom moom mooy ay mu kooku moo ko muur ci mbàjj làq ko ci barab ku ne xeex bi jël drapo ba di xeex di xeex ba rey seen njiit ya muy Baxraan ak Rustoom ak ñu nga xam ne ñoo fa nekkoon ñëpp mu rey leen ba ci am ndam jàpp nañu ko ne euh, Bahrazaan moo doon seen buur ba loolu mi nga amoon ci atum dix-neuf fukki ak juróom-ñeent boo xamante ne bi sallallahu alayhi wasallam eh, génnoon gàddaay gi Omar di liggéey ci wàllu administration Omar ku yeewu la woon dagg-daggaan yi ngay gis ci wàllu urbanisation defar ay dëkk dajale ay dëkk tudde leen capitale régionale ku mel na Kuufa moom Omar ibn Khattab moo ko sañ dajale dëkk dëkkaa yu doon daan kër ma kër ma yi dañuy dégg na kër diw kër paate kër balla kër abdu kër ma ngóone kër ma kër ma yooyu yëpp dañ leen daan dajale ci benn dëkk def ko capital régional wala ñu def ko capital départemental yooyu Seydina Omar ci ba mu koy def depuis septième siècle euh, radiyallahu anhu booba gis nga tey nit ñi ni ñu mën a dem ba toll ci dagg ay dëkk di ko lotissé jox ko ay nit ñu dëkk ko mu nekk dëkk bu mag làmp yi ñëw courant bi ñëw ndox mi ñëw dund bi ñëw euh, ñu def fa gouverneur benn gouvernance boo xam ne nii boo bëggee kayit ñu jox la ko euh, loo soxla foofu rek ñu mën la koo jox ci wàllu nité gis nga lislaam ni mu teel a civilisé gis nga lii bari nañ koy tricher moom di ko nangu ci moom te ba ñu koy xalaat di ko def depuis septième siècle woon Omar ibn Khattab loolu la def dëkk bu ñu Kuufa noonu la ko def dëkk bu ñu wax noonu la ko def nga xam ni daanaka mën naa la ni civilisation gi Omar ibn Khattab wane loolu kenn mën cee kenn kenn mës koo gis euh, Omar ibn Khattab ba tey moom moo organisé ay cabinet dagg ay ministère kii moo yor lii kii moo yor laa dagg ay ministère ne kii moo yor lempo yi yaa war a laaj lempo yi ne kii moo yor finance li war a génn yaa ko war a génnee te am certification luy génn rek na leer ne kii moo post poste yeek yeeg euh, yi ñu war a jëflante yéen buur yeeg secret d'état yeeg yëpp ñu am fu ñu ko dénk muy post jël ay fas ak i giléem ñuy tas xibaar yi ki war a wax ak li ñu war a wax ñi ñu war a informer li ñu war a jëflante ñëpp Omar ibnu Xataab wut ay nit ñu ko yor nga xamante ne ku ci nekk état moo lay reconnaître di la fay salaire mu suqali baytil maal yaatal capital bi jël Bahrain nii def ko capital régional likaan mu def ko noonu kërmaan sedrsaan xuraasaan ñëpp mu def leen ay capital régional jël Irak ak Kuufa ak Basra def leen capital régional ñëw Saam dëkk bu ñëw Ximas ak Dimask capital régional ak Palestine yëpp Omar ibnu Xataab radiyallahu taala anhu moo leen dagg dafa leen ay capital régional fexe leen fexe ba ñu nite def ay gouvernance defal leen ay administration ñuy wut kayit ñu war leen a xam kuy dugg ci dëkk bi kuy génn ci dëkk bi ñu war laa xam wut ay comité d'action ñuy contrôler nit ñi jàmm ji di am ku def naka su noonu wala nga wax loo xam ne war loo ko wax fañ la war a yóbbu defal ay tribunal defal ay poste police lépp Omar ibnu Xataab ci nguuram radiyallahu taala anhu moom moo ko def mu jógee fi daal dagg Égypte ba bëgg arab yi addu Xijaas ñëpp benn dëkk la xam ngeen ni Égypte mii Euh, daanaka ci màkk la bokkoon waa ci màkk la bokkoon bu leen fàtte ne Égypte ay yonent yu bëree bëree euh, yàlla yónni woon na leen fa ku mel Yusuf alayhi euh, baayam Yanquba addu Kanaan la dëkkoon waaye Yusufa moom foofu la ko yàlla yónnee yonent yàlla Moussa alayhi salaam foofu la ko yàlla yónnee ndax fa la juddoo ni ki noonu itam ñu bare bare bari ci doomu bàyyi yonent yàlla Yusufa yi seen doom yi ñii ay buur lañ daan doon ñii ay yonent lañ daan doon ñii nangam nangam kon Égypte dëkk la boo xamante ni ci Afrique la bokk léegi waaye nag dëkk bu yàlla baaxal mu dem Égypte def ko Misra ulya def Misra sufla def xar bu Misri yi boole ko ak Libya mu ñëw zip fu jasiru arab mooy fii arab yi nekk jël Makka def ko muy capital jël Madina Munawwara muy capital jullit yi radiyallahu noonu la nga xamante nii noonu la Omar ibnu Xattaab liggéey muy liggéey boo xamante nii inoubliable mu jël Taayif ak Sanaa ca Yaman ak Hadramawt ak Xulaan ak Sudda ak Zamu Jundi ak Nahraan ñëpp mu def leen capital mu ngoog muy genre frontière yoo xamante ni dañuy dañuy liggéey lislaam état islamique dafay dox lépp loo xamante ne alxuraan wàcc na fa te wax ko ci jullit yi muy sunu dustuur ñu wut ñu koy sàmm wut elimaan wut ñoo xam dañuy contrôler nit ñi nit ñi nekk ci jàmm kenn du leen not kenn du lekk seen alal kenn du jaar ci seen kaw lépp Omar ibnu Xataab taxaw ci mat sëkk li mu doon li yonent bi sallallahu alayhi doon jàngale lenn la ci musta génn ak topp lépp mu def ko Euh, ngir yàlla ak dimbali lislaam ak dimbali jullit yi ak dëggal woote Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, état état Omar ibn euh, nii la woon mu jël Madina a muy capital jullit yi jël Irak ak Iran ak Sham ay tëral benn assemblée magi Makka yi nga xamante nii ñoo gàddaayoon jóge Makka bàyyi seeni doom bàyyi seen i wajur bàyyi seen alal bàyyi seen i bitig ak seen tool suur ko gedd ko ngir lislaam gedd ko ngir sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñëpp sayyidina Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu jël leen def benn assemblée tëral leen di diisoo ñoom lépp lu war a def te muy loo xamante ni lislaam dafa war a tasaaroo ci àdduna bi ñu xalaat ko càmbar ko seet ko ci alquran ba mu wóor ne yàlla wax na ci nangam su nangam jooju waxul ci alquran ñu xool xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi mokkaloon xadis te jub te maandu ñu seet leen su loolu amul nag Omar yàlla may na ko ma lépp lu ñu lu tërek yàlla daaw na ko dimbali mu mën cee génne ci cat ci ayat alquran wala mu génnee ko ci xadis yàlla du yónne du yabal mbii yàlla ku muy ku mu fal rek am na lu mu namm ci yow. ci noonu la Omar ibnu Xataab daay tërale asaka yi daal ni asaka yi ñii ñoo koy collecté asaka yi nii lañ koy indee daal di tabax ay kër yoo xam ne fa nañu dent denc asaka yi ñu seet lan la lislaam war a liggéey jàkka yeeg jumaa yi école yi fi ñuy jàngale nit ñi fu ñu war a fajoo lépp Omar ibnu Xataab tëral ko teg ci ay loxo ba bari leen contrôler radiyallahu taala an mu daal di jël loolu ñu tuddee waqfu lillah waqfu nag ñun suñu góor yi ñun xamuñu ko ba xamuñu ko ba baax maa ñi nga xamante ni da nga jël sa alal ni sama alal ji def naa ko ngir yàlla wala nga ni sama kër gi joxe naa ko lu ca génn ci luyaas ñu ko def ci am na ñu koy def léeg nga dégg député boo xam ne naan du ma jël sama salaire waaw sama salaire nañ ko jox jàngalekat yi wala sama salaire nañ ko jox médecins yi wala nangam nangam ala kulli am na ñoo xamante ni ku mel ne du ma ko bañ tudd ndax lu rafet la Iba yal na yàlla bàyyi ko fi lool te may ko wér mag mu baax la dégg naa ko xamante ñu xëy na ci jëmm ba mosu ñu tegante loxo waaye dégg naa ci moom jëf ju rafet yooyu nga xamante ni daawal na ko def kon waqf lillaay baytil maal moo xamante ne nii baytil maal bu njëkk bu ñu mosaan indi néew yonent bi sallallahu alayhi seen seen mbokk mi ndax bàyyi na bor ñu ni waaw ñu ni ko kay fayal bu kenn bu kenn waxul ni cell mu ne ah, kon jullee leen seen néew ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néew bu ami bor moo tax ba léegi si saa wuñ tëralee néew ci buntu jàkk ni imaam lay waru goru imaam bala muy kabar wala muy wax dara na laaj ni ku mu yoreel bor wala ku ko yoreel bor mu lijjanti ko mu leer nañ waaye léegi tam nit ñi benn waay bëgg siiw rek ak bëgg a ngand ngandelu ak di pataa pataalu léeg-léeg ñu ne néew bi day kan moo kan mooy kan mooy wakilaam ku mu yoreel bor wala ku ko yoreel bër benn waaye jóg ne gàddu naa bor yi yaa ngi gàddu loo xamul nag gàddu naa bor yi moom du wax na ko wóone keroog ba nga ne gàddu gàddu nga yi lépp mi nga xëpp ci sa loos xaw ma nga bëggoon xaw ma njiit nga bëggoon xaw ma loo doon wut waaye gàddu naa bor yi ëpp nay wax gàddu naa bor yi ëpp nay fekk na xamuloo ko waaw neel képp ku mu yoreel bor na nga ñëw indi ay profil leer suñ ko mënee fay ñu fay ko bu ñu ko mënul fay ñu seet ci mbokk yi ñu bokk koo fay ndax bu fekkente nit dafa génn àdduna nga war koo donn wax dëgg yàlla bu at bàyyee boor nga am ngor gu toll ni war koo fay ginnaaw moom bu fekkoon ne bàyyi woon na fi alal yaa koy doon su fi bàyyee bor nag war nga mën am ngor gu toll na fay ko nag ndax kat loolu rafet waaye xam ne kii mënul yorul jeexal na wérul jigéen la jabooti wala nangam nangam nga daal di fagamu rek daal di am looy ah mu ngi mooy loolu koy mu ngi mu rek ah waaw rek teg lépp ci loxo yàlla dëgg la waaye nag am jël responsabilité baytul maal nag Omar ibnu Xattaab na ko toppatoo daawoon na ko toppatoo waaw kuy maye sa ngir yàlla am na fu ñu ko war a yóbbu xare yi li ñu daan doon na ci xare yi xanaayim yi maanaam bu ñu musaan génn bitan yi bu ñu jógee ci ci ci ci xare bi bi dañ leen séddale nit ñi lañuy jël ak li naan yóbbu ci baytil loo xamante ni capital jullit yi ngir ëllëg bu lislaam soxla mu ngoog ñi lislaam war a donn ñoo xamante ne kalaala lañu bàyyi wu fekk kenn kenn ku leen mën a donn te bàyyi alal ñoo ñëpp Seydina Omar wutaloon na leen ay chambre yoo xamante ne ci lañu yóbbu seen alal jooju daañu leen dëgg ay salaire yoo xamante nii dañuy xool salaire yi waaw soxna yonent bi sallallahu alayhi sallam ku nekk war na am nangam ndax soxna si yonent bi alayhi salaatu salaam la ñi xare woon badar am nañu temps ñi seen jëkkër dee ci xare yi am nañu nangam ñi am blessure ñooñ tam am nañu nangam ñi am xare ñi ñi ku xeex ci xare ak yaa xam blessure boo mën a am nag bu dee tànk la bu dee bët bu tuuru la bu dee loxo bu damm la bu dee danga danga da nga da yooyu yëpp ñu jël ni kii ku nekk war nga am temps ñu jël Assane ak Xuseynu ñaari set yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi ñooñu mu yéegi leen ci waa Badar ndax tam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa woon na wax ni sange àjjana yi ñaari sange àjjana yi Assane ak Xuseynu la kon loolu rafet na jël Abaa Zarin al-Xafaari yéegal ko ci waa Badar ak Salmaanul Farisi ñii ñëpp mu yéegal leen ci waa Badar nga xam ne nii salaire yi doon am salaire yu doon yu am solo lay doon doon mu ne nag ñi nga xam ñoo nekkoon xuday bi xare xuday bii xuday bi du xare waaye nag euh, yàlla alxuraan da ca wax inna lazina yu bàyyi woon na laax innamaa yu bàyyi innamaa yu bàyyi woon na laax yadu laa fawqa aydihim mu ni ñooñ nga xam ñoo doon jaayante ca xeru garab ca xeru garab ga ñu ngi ñu ñu jaayante yàlla ne leen wóor ni loxo bi yàlla ma nga ci seen kaw loxo ya mu doon xare boo xamante ne nii kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte oma daal ni kon ñooñu fekke woon loolu dem nañu ba léegi teraanga am na kon nañu am nangam seen jabar yi nañu am nangam xarbul euh, qaadis yi muy xare xare bu métti boobu ci Barazaan xare boobu ñu ni kon ñi ko demoon ñëpp état di leen jox salaire nangam pour ñoom lu ñu dunde ñii ñëpp nag ku ci nekk la la lislaam di jox pour bu bu la lislaam soxlaa nag nga jóg ñu ngi mel ni ay militaire militaires yi jaay seen temps jaay seen jot jox seen bopp état jox seen bopp askan wi ak lu ñu mën a am ak lu ñu mën a ñàkk ñoom fu réew mi soxlaa noppi nañu am vie de famille noppi nañu am jabar ki doom noppi nañu am ay bànneex ki yaay loolu rek dañu libéré réew mi libéré peuple bi loolu si na Omar eh, ibnul Xattaab radiyallaahu anhu bokkoon na ci ñi ko jëkkoon def ñuy ndokkeel bu baax suñu mbokki soldaar yi takk der yëpp nag boo nee soldaar sa jëm militaire xëy na eh, keneen keneen waaye yéen ñëpp rek leen wóor ni suñu xol sedd na ci yéen suñu xel dal na ci yéen bu baax a baax yal na leen yàlla gën a sàmm taxaw leen mu daal nag jël nag nag ñi xeexe woon xare yar mook ñu leen temps la ñuy am nii la Omar ibnu Xataab tërale woon ñi nga xamante ni ñëpp ñoo xeex ba lislaam am doole mu leen yéen lii la leen lislaam di gàddul lii la leen lislaam di jox kon ngeen dolli cee góor radiyallaahu taala ñu ñëw kon léegi ci ay manaqibam maanaam ay jagleem radiyallahu la ca jëkk mooy Omar ibnu Xataab radiyallahu taala anhu boroom jikko la woon jikko ju rafet la yoroon radiyallahu taala anhu Omar ibnu Xataab ku maandu la woon ku maandu la woon ci àtte eh, fi nga xam ne Omar ibnu Xataab ku maandu la woon bi nga xamante ni toog na ci xilaafa gi dafa am benn gouverneur bu ñu wax Omar ibnu As da koo faroon yóbbu ko Égypte am As moomu xam nga gouverneur ak yëpp événement yu am dinañ am seen seeni xeet fo lu mel ni ay course lu mel ni fas finale ñun moom su dee suñu dëkk may nawetaan lañ koy jëlee wala ay mbappati làmb yooyu nga xam dana dana dajale askan wi politiciens yi mën cee profité toujours di jàkkaarloog aw askanam di def leen te ñoom yu baax yooyu yëpp xëy na deesu ko mën a tere waaye Omar Ibn As mii bi nga xamee ni toll na ci loolu benn course lañ doon def ci Égypte Ibn doomam bokk ci mooy gouverneur bi doomam bokk ci ci ñi war a dawal ci choqué yi yàlla dool ñu gañe ko daan na gañe waaye bi yoon dañ ko gañe xolam tàng nag ndax gàngoor gi mu àndoon nag la mu yaakaaroon ni moo koy def bégale ko baayam xëy na nangam nangam xolam jeex mu def lu ëpp lan la def lu ëpp mooy dafa ñëw ci ki war a jël trophée bi nga xam ne moo ko gañe mu xaj ci karwaasam ni ko ci nil bi tay ko yow baadoole bi nga doon mirtuwulu am trophée li nga mirtu am mooy ak karwaas ci nel moom nga war a am ndax man maay doomu ko tedd sama baay di di gouverneur sama yaay di première daam nga di ma di ma di ma raw xam nga loolu day wànd la xale bi tam daal di raay boppam mënul fayu wax tamit doom xeex ak doomu gouverneur ci mbooloo moom ah, bu la góob yi jàppee wala gaa yi jàpp dootu ko dolli mu koy xanaa muñ rek ba yàlla ñëw xale bi da nekkoon fulla jël torofeem ñibbi këram toog ba aj màkk gi jot xale ba ñëw duñaa yëbaaj gi jeex léegi sax di koy ci biir màkk ci biir foofu fi buur bi defaroon noonu ci biir am na fa ay jalsa yu ñuy def wala borom xam-xam yi def question réponse di def fatwa di ubbi nit am na Medina Munawara am na màkk xale bi ñëw ci gis Omar fi mu toog bu ñu waxtaanee ba daaneel mu jóg taxaw eh, yow mi nga xamante ne yaay amirul ne yaa fi nekkal dëgg sama bopp bii nga gis nii lii nga gis ab xaañ la ab légit la sa doomu gouverneur ba ca Égypte am lu bu ibn as moo ma def nii dañ doon course ma raw ko ma jël sama trophée mu fekkee mu fa dóor ma yet ci bopp ni moom mooy ko tedd bàyyi may gouverneur yaayam di première daam mu di ma dóor ma ne ko nag soo dee fekkee nag maa dóor ci mbooloo fayiwuma li sa bàyyi nekk gouverneur te sama bàyyi nekkul gouverneur moo tax ba ma daal di xool Amr ibn Aas si biir mbooloo mi ñu ko ndax dëgg la mu commencé naka nakal ah non c'est parce que c'est-à-dire mu ne ko déet ndax lii dëgg la laa wax ña fa nekkoon ni dëgg la kay dëgg la de Omar ni ko waxuma la sa doom ndax nekku fi waaye influence bi mu am bay saaga nit ñi ak di dóor nit ñi ci yow la ko jëlee boo yoroon sa njaboot duñu ko def léegi nag kon da ngay ñëw yow mii en tant que gouverneur nga teggi sam kaala gi sa mbaxane mii dékk sa bopp bi mu dóor ci yet wa sa doom ji dóoroon te nga waroon ko faj te fajoo ko gaawal mu daal di jóg ñëw taxaw teggi mbaxana mi sëgg sëgal bopp bi goos bi nekk ku yaru ko baal naa ko baal naa ko ngir yow mii Umar ibnu Xattaab nga xam yaay faaruux yow li ñu tuddoon faaruux ñu tàggale dëkk ak caaxaan ni nga maandoo atte bu maandu bi nga xam te ne def nga ko su ko defoon du ma te doo ko yëg kon baal naa ko xamal ne ko nag baal nga ko waaye lislaam baalu ko ndax influence bi mu bi bi bi bi ay doomam am ci nit ñi ba ba tax yarawuñ leen teey ñu réglé wuñ seen bopp moom mi moo leen ko may kon dañ lay folli ok gis nga Omar ku maandu woon la xoolal ma wii fit xoolal gii maandu xoolal ñu ñi nga xam ne léegi ko falu rek sa doom bëgg a bokk say ñoñ bëgg a bokk say rek ñëpp ku nekk bëgg a doon président ku ne bëgg di dogal kenn ku ne ruq ba nga xamante ne fa nga nekk ña fa nekk yëpp buur ak dag lay doon waaw loo wax noonu la looy bëgg wax noonu la boo yónnee kenn du ca jot boo yóbbatee kenn du ca kenn du la jot ko wax kenn nga mel ne doomu buur te jàpp ni xëy na lii dalul jeex amul lu dul jeex ci kaw suuf amul lu dul jeex kon nag Omar de nit ku maandu la woon yaroon na ay waa këram doo gis benn doomam wala benn jorbaatam wala benn ci jabaram kuy jéem dara dara ci lu wane ni maay première daam mbaa maay maay daam amul euh, buuru buuru buuru mit Égypte yónnee woon ay cuuraay ak ay nemmali pour ñu def ko ci ñu def ko ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi boobu Omar moo fi nekk xalifa rasulullah sallallahu alayhi bi ñëwee Omar woo jigéen ñëpp ni nañu koo defar tay ko ci ay ay cuuraay ay nangam denc ko pour di di ko cuuraayee barabu sang bi ak jàkk ji ñu ko defaree ba àggal soxnaam mbànd mi mu yoroon doon ko lengali mu jël mbubb boppam raay ko ci biir pour mu taq ci mu denc ko denc ko ba ñu fàtte ko ba fàtte ko benn bis Omar ayee fa rek soxna si daal koy sol mu xeeñ xun Omar ne ko ah waaw mu yow moom sa parfum foo ko jëlee sa cuuraay foo ko jëlee mun nga kere de ba ñuy defar ba ñuy defar cuuraay yi ci laa jëloon sama mbubb taqaloon ko ci ma weer ko mu wóog dama denc ko nag Omar ne ko simil mbubb mi nga saraxe ko mbaa nga denc ko mbaa bul ko soloti bul ko soloti mukk parce que moomuloo ko. alal réew mi la alal baytil maal la lislaam lañu ko jox kenn waru ko kenn amul droit di ko jëfandikoo ci loolu la lislaam mayul kon bu bu ko soloti na mujj tey bul ko soloti xoolal ma loolu rek Omar ibnul Xataab di nit ko maandu nit ko baax waaye waaye ñu delluwaatul ci lislaam te càmbar lislaam càmbar ñooñ lislaam walla dana gën a baax Omar ku maanduwul ku maandul ku ñemewoon wax dëgg la ak ku mën a doon du la raay raayal mukk ci ñàkk laa wax dëgg ngir sa daraja amoo ku mën a doon du la xañ mukk do dëgg ngir da nga ngir da ngaa néew doole wala da làmp da nga lompoñ mbaa da fi doxandéem nga fi dëgg moom dal alxaq maa omar xaysu kaana dëgg ngeeg omar fu mën a nekk nekkal buur nekkal doomu buur ak koo mën a doon jamono boo jalgatee mbaa nga wàcc yoon Omar xamatu la siqatu la yow liggéentatu la ci dara dëgg rek lay gis loo néew néew doole loo sol soli sagar loo ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk am am soo amee dëgg Omar dana far ak yow ba nga defee ni sa sa mbokk la ci deret wala nga defee ni dafa am lu bëgg ci yow dana la ko jox ba nga kontaan radiyallahu taala anhu mooy Omar ibnul Xataab Omar ku baax ngoog sordaar sordaar la woon militaire la woon bu rafet jikko militaire la woon bu rafet xol koo xamante nii dëgg rek moo ko daan ñor waaye ko ñeme woon la ku taaru woon la radiyallahu taala anhu ku mënoon roy yonent bi alayhi salaatu salaam la ci lépp ndax daawul dem ci yoon boppam rek ak di tëxëñ tëxëñi génn sharia génn alquran génn xadis maanaam génn sunna déedéet fit wi yëpp ñeme gi yëpp ak lu mu ci mën a doon radiyallahu taala anhu da koy teg ci dëgg rek teg ko ci alxuraan rek bu ne yàlla nee na mu sama samaan wa bu ñu xoolee alxuraan waxu ci wala dégguñu déggu dégguñu ñu seet sunna bu loolu amul ñu xool xiyaas la gën a lëng ak nit ñu maandu ña ak nit jub ña la ñu jëkk la ñu gën a def rek Omar ànd ci ak ñoom radiyallaahu taala anhu mbokk ñu déglu ñu teg sunu baaraam foofu ba suba jàmm incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci Omar ibnu Xataab radiyallaahu ci ay jikkoom ak i manaqibam ñu ngi gërëm baax mbokk yëpp di ziar ñëpp suñu sponsor yi ñu leen di nuyu te di leen ziar di leen balaq di leen balwaq sunu xarit suñu soppe suñu sëriñ alxaji Oustaz Alioune Sall borom alquran ju sell ji te rafet la ko lool gaynde waaw gaynde piir yal na yàlla taxawul Oustaz maa ngi leen nuyu baax bàyyi la ak place bi nag nga ñëw ak ci tafsir bi bu ñu daanee la ñuy jox imam Omar Seck ndax imam xëy moom itam tey jii la moom mooy ñëw xam naa sañ Mbàkke moom tam xam naa boo demee ma nga jurbel kon <laughs> Mbàkke ñu ngi lay nuyu tax bu baax baax di leen ziar euh, Pape Abdoulaye Dieye l'infatigable technicien moo nekkoon ci technique bi seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa